forme mooy primé ak beauté boo amul forme amoo beauté dañ na ko ba am dañoo xam dañ koy namboo naan maa gën a rafet ay actrice maa gën a nangam sangam maa nangam sangam parce que pour ñoom c'est pas le talent qui compte c'est c'est c'est c'est ah, talent bu xëy na dina compter ci ñenn ñi mais avant tout la beauté parce que balaa ñuy découvrir sa talent yow sa beauté moo leen di njëkk attiré sa form moo leen di njëkk attiré

donc pourquoi les gens euh, de xeesal pose s'il pose bah ah daf euh, xeesal weexal lu il Sénégal dañuy si à la quête de beauté jaral na leen lu nekk moo tax dit instant yi ay ay produits yi yokk fes ay produits yi yokk hanche ay produits xeesal muy gën a jar les gens investissent ay céréales da ngay gis koo day mélange ay céréales da jël ay farine ay chocolat miel bonbon lo xalat ci aduna mu ñaf ko ci farine bobu jox ko nit nit di ko incurgité di ko jënd muy jeex nga gis leen ñu tek ay bassin. basin basin di jaay ils se font des millions parce que les femmes sont à la quête de la beauté parce que pour ñom lu ñu bëgg beauté moko mëna am waxee ñu né kilifa yi ko rafetul du la takk mais c'est la vérité xol leen kilifa yi autour de vous ni ñi ñuy ni ñi ñuy doxaan ñi am xaalis xool leen autour de vous ñi ñuy takk ñi ñuy doxaan et c'est ça qui crée les complexes chez les femmes pour nga gis jigéen bu gëm boppam ku mel ni mami ko maquillage wul posul pose posul ongle euh, taxaw jàkkaarloo ni wax nit yi sans filtre parce que dafa gëm boppam et c'est un travail qu'elle a fait sur elle et qui n'a pas été très facile et qui n'a pas été très facile parce que da ngay def sa da daan def sa live sax nit yi bind na yow ñaaw nga waaw mais boo ñaawee nag ñaaw nga lan nga ci mën nag ngay accepté man sama ñaawaay bi dama koo accepté de ma ñaawaay bi ak ko bëgg dama koo accepté